alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun laa ilaaha illallah muhammadu rasulullah inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun yaa maryamu anna laki haadaa qaalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yashaa'u bi gayri hisaab sadaqallaahu al-aziim يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب إنا لله وإنا إليه راجعون أمة الإسلامية يكره góoru yàlla bu tedd ummatul islaamiya na góor gu mag Cheikha Maryam Ibrahim Niass ummatul islaamiya ñàkk na góor gu mag koo xam te dundam yëpp alquran la ko liggéeyal liggéeyal sëriñam baayam mawlaana Cheikh Ibrahim radiyallahu anhu ummatul islamiya ñàkk na góor boo xam ne ni taxawaayu siddiqiyal kubra la taxawee woon ummatul islamiya ñàkk na góor goo xam ne muy cheikh Mariam Ibrahima Niass ci afraadu ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam la bokk alquran mi ngi jooy naam alquran day jooy jooy alquran mooy wàccee yërmande jooy alquran mooy wàccee leer jooy alquran mooy jooy koo xam ne dundam yëpp alquran la deeyam alquran la robam alquran la bàmmeelam alquran la barzaxam ci Cheikh Ahmad Tidiane alquran la dekkeem alquran la cheikha mariam ibrahim Niass faydata tijaaniya ñàkk na koo xam ne nii góor la góor la wax de góor góor moo dem góor moo dem góor gu màgg màgg màgg góor gu baax góor gu rafet jikko góor gu am fit ku am fit ku jàmbaar koo xam ne góor la góor la ci lépp góor la ci lépp jàmbaar la ci bëgg Cheikh Ibrahim ak liggéeyal ko jàmbaaru xare la boo xam ne dafa jihaat ci bakkan yi ñaata xale da Cheikh Ibrahim yar ci lu baax ñaata xale la Cheikh Ibrahim yar ci jikko ju rafet ñaata xale la Cheikh Ibrahim yar taril leen alquran ñaata xale la Cheikh Ibrahim yar jàngal leen wuyu tagg Mawlana Cheikh Ibrahim yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaata xale ñaata jigéen ñaata góor kenn xam ko ku may yàlla yàlla yokk leer leeram leeru suñ sëriñ nga xam ne mooy leeru leer yi ñaan yokk leeru baay mooy ñaan yàlla yokk suñ leer ndax baay mooy jëmmi leer dëgg dëgg ku baax dem na dëgg dëgg ku kawe ci yàlla dem na wuyu ji na boromam ndax waxtu bi moo jot kon nag ñun ñëpp dañ leen dellu ci yàlla xam ne yàlla rek moo fi nekk keneen nekku fi ku may moom xam ne yàlla rek mooy buur ñëpp ay jaamam lañ ñu jaamu yàlla jaamu gu sell dee bu ñëw dafay bette dañ leen góorgóorlu ci suñ borom dañ leen góorgóorlu ci suñ borom ñu jaamu yàlla ñu sellal yàlla yàlla dafa raglu yàlla dafa raglu jaamu yàlla yi xeeti yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam taalibe bàyyi dañ leen dellu ci yàlla yàlla yàlla yërëm ku yokk leeram yàlla yàlla ko yokk leeram ku baax ku tedd ku tedd dem na koo xam ne nii dëgg-dëgg buñ ko peesee góor yu bari mu la nga leen góor la ci góor yàlla yi alquran liggéeyal na alquran liggéeyal na xam-xam jari na alquran taril na alquran ay nit jàng na xam-xam jàngal na ay nit xam-xam Cheikha Mariam Ibrahim Niass royteef bu baax bu am itte dem na ku am itte bu kawe kawe kawe kawe kawe kawe kawe macha allah fa tabarakallahu ahsanu xaaliqina dem na yàlla yàlla yokk leerab nit ku màgg ci yàlla tey moo wane gannaaw yàlla mbootam des ci njabootam ak ci pays bi ba ilaa yawmu tiin Cheikha Mariam Ibrahim Niass يا مريم أني لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Cheikh Ibrahim Niass moo baax moo jëmi mbaax moo sos mbaax moo jur ay mbaax ay jëmi mbaax Cheikh Ibrahim radiallahu anhu wa ardaahu yal na yàlla saxal ci mbëggeelam saxal ñu ci kóllëreem ku baax dem na xale yu jigéen yi am ngeen royteef am ngeen royteef bu mag yéen jigéen yi jamono ci ci Cheikha Mariam Ibrahima Niass xaadimatu alquran dem na roy ci moom itte dafa baax itte bu ànd ak njub moom la Cheikha Mariam amoon itteem yëpp yàlla la ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam itteem yëpp Cheikh Tidiane Cheikh Ibrahima yëpp doomi aadama yi nu mu defaree nit nu mu fexe alquran nekk ci dënn góor yi góor yi góor góor yi ak jigéen yëpp kon nag ñu ngi sant yàlla ci e, dogal bi nga xam ne yàlla moo ko dogal si asal lépp lu yàlla dogal rek ñun gërëm nañ ko alhamdulilahi la alamin allahuma ajirna fi musibatina hadi wa abdilana xeyran minhu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ñu dalal sopp yëpp ak taaliba yëpp ak njaboot gi yëpp ay doomam ay doomi ay soppeem ay mbokkam xam ne dogal yàlla moo ñëw ci ku baax waxtu bi moo jot ci ku tedd bu doon doomi aadama yu baax yi rek kenn bëggut a tàggoog moom waaye nag yàlla dem na fi nga xam ne foofu la dem saxawaay bi nekk foofu la résultat bi nekk yàlla yàlla yokk leeram yàlla yàlla sàmm njabootam yàlla yàlla sàmm njabooti bàyyi gi yàlla yàlla sàmm taalibe bàyyi yi yàlla yàlla sàmm jullit yëpp yàlla yàlla indi ndimbalul islaam yàlla yàlla indi ndimbalul islaam yàlla yàlla dimbalul islaam yal na yàlla xettali taalibi Cheikh Ibrahima Niass yal na yàlla xettali taalibi Baye taalibi Baye yal nañ gën a yëkkatiku taalibi Baye yal nañ gën a kawe taalibi Baye yal nañ gën a bugg Baye taalibi Baye yal nañ gën a xidmaal Baye taalibi Baye yal nañ gën a xam Baye xam ak liggéeyal ko ak topp ko ne ci siraatul mustaqim mi nga xam ne moom la Baye nekkoon Baye léppam njub la léppam xam-xam la taalibe yi tamit lépp seen lépp njub la seen lépp xam-xam la yal na yokk yal na yokk muqaddam yeeg xulafaaw yeeg umaraaw yeeg yëpp ummatu muhammad yëpp ñëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla maa ngi ñaanal yàlla soppi yëpp maa ngi tuub maa ngi tuub jëm ci yàlla di ko jéggalu maa ngi ko ñaanal di ko ñaan di ñaanal xeetu yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal xeetu yonantu bi di ñaanal xeetu yonantu bi di ñaanal lislaam tariqa bi di ñaanal njabooti baay gi ak saxaaba yi àndoon moom ñëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla yëpp di ñaanal sama waajur sama yaay sama soppe di ñaanal mboolem soppee xarit yëpp bàyyiwuma kenn ñëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla maa ngi sàkku seen ñaan xaadimu saaxibul faydati jaamu xeeboo xeebo bi Ibrahima Mamoun Ibrahima Niass asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi eh, ñaan yàlla nangu ñaan Cheikh Mariam Ibrahima Niass yàlla na ko yàlla xare aljanna bi gën a kawe ci aljanna yi yàlla ko anhu bés bi bés bu kawe la bés bu màgg la bésu samedi bés bu kawe bés bu màgg yal na yàlla yokk leeram inna lillahi wa inna ilayhi rajiun sant Baay Ñas alhamdulilahi wa shukrillah la ilaha illa allah muhammadu rasulullah sallallahu wa sallam